maa ngi xool communiqué UMS bi j'étais parce que je m'attendais aussi ak ak UMS quand même nekkoon bi Ousmane Sonko fii saaga magistrat yi teg lu wax yu graaw ñàkk tegginti magistrat yi jamais ils se sont prononcés sur ça jamais lorsqu'on lorsqu'on traite un, d'instruction de sax jaaraat mais c'est ça le courage xam nga courage. je le concède. ndax ma courage c'est pas de dire état bi lii agent judiciaire lii loolu c'est facile attaque état attaquer ministre yi c'est facile pour ñu ne courage vous êtes courageux c'est très facile le courage mooy boo gisee ne état bi ngi doxal loo xamante ne yow pour yow jàpp nga ne du yoon nga am courage dénoncé ko de la même manière un citoyen ordinaire un citoyen ku mu ti doon un homme politique ku mu ti doon bu fekkee jalgati ne yoon attaque seen profession ngeen taxaw aussi taxaw thème vous armez de courage pour dénoncer ko c'est pourquoi j'étais vraiment surpris comment peut-on attaquer dafa daxal nga ak man waroon nañ ko def mais mais Moussa Bokar loolu may courage